fatkiné boobu rek a baax demoo ci serrurier ba ba mu defal la double clé nga am clé ma am clé ku ne di ubbi waaye li ci neex mooy xam nga ban clé la acteur politique yi amagul clé wu askan bi anamu Papa Sane ana clé wu askan bi <laughs> ma nga ca fan ah ñëwal nii yor yor ñëw ci présidentielle bu 2024 mu ne Boun Abdallah Dionne le vrai choix de Macky se dévoile ñu taxaw fii tuuti wala parce que bëgg naa laa dégg ci candidature Boun Abdallah Dionne bi quand même bëgg naa xam parce que dafa waroon bokk ak yow tamit bëgg naa ci xam sa xalaat APR Benno Bokk Yaakaar nga bokk candidature Mouhamed Boun Abdallah Dionne bii Papa Assane dangaa d'accord ak yoor yoor li mu wax wala sa gis-gis dafa wuute ak thèse bii nga xamante ne moom la ñuy def nii thèse boo gis am na antithèse wallaay dama dama dama dama yoor yoor dafa jot sax daanaka dafa affirmer sax moom hmm? dafa affirmer hmm? mais dama jot Euh, xam nga xam nga lu ci situation bi. mu ngi dund situation bu doy waar on est à quatre mois de l' mm-hmm. te xam nga ku bokk. Mm-hmm. loolu garaaw la de. Mm-hmm. Hmm? beneen bi kii mooy premier ministre bi gën a yàgg ak président Macky Sall. Mahammed Abdallah Dionne nu en passant. kilifa bi nu mu laa nuyu ba baax di nuyu sa xarit bi sa doom bi Socé Ndiaye. Euh, gis nañ ni temps yi moom moom talul kenn mu ngi ci yaw bu baax. nu mhm. euh, mu kaa ziar bu baax waaye. Mhm. Samba ak Koor Mahamad Abdallah Dionne dafa def discours démb missive laay wax missive mhm. mais missive mënoo ko sànni sa bopp. missive moo la leetar. waaw mais ko sànni sa bopp. xam nga lettre c'est à l'adresse mais mënoo bind sa bopp quoi je veux mais moom ni mu waxee dafa mel ni kuy wax ak koo xam ni moom ba kooku di def loolu moom dafa toog di ko xool. est du Mariama Ba une si longue lettre. Fatou Kiné damay laaj rek. en fait je me mais kilifa bi nga baal ma rek mais je me suis dit mais il est en train d'avouer uh-huh. l'échec cuisant bi tax sénégalais yu mere leen je m'engage maam yi liiral ma. je mon engagement politique et mon parcours personnel auprès du chef de l'État sama engagement personnel ak gunge gi ma gunge njiitu réew président de la République m'incliner naturellement taxoon na xoolal ma def nii naturellement mu ne à la poursuite d'un tel combat euh, au sein de la majorité présidentielle waaye je m'engage ah. parce que abi ah, dikkagul la situation de tension politique et sociale que nous vivons situation tension politique sociale bi ñuy dund. présentement fii may waxee yow nii. notre souveraineté politique. parce que yonent bi ma mën a traduire. <laughs> bu nee na je m'engage engagé tina de parce qu'il <laughs> nous faut de nouveaux moteurs de promotion faaw ñu taxawal lu bees ana li fi nekkoon xanaa dafa paan d'une véritable <laughs> souveraineté économique qui place au cœur du processus national de création de richesse les principales forces vives du pays. D'accord. Et si voilà. on l'avait choisi comme candidat de la paire Benno Bokk Yaakaar ah. ndax dina tenir ce discours. Le, il était où pendant temps. waaw euh, tax ma ne nit mënul bind boppam. Mhm. maanaam mënoo bind yow fi nga nga dem poste ñu dugal ko sa boîte postale. sa boîte postale xam ah, mhm. mais waaw mais li ma dégg nii daa mel ni koo xam dafa toogoon fële. mais lan moo waral moom mu war a wax réconciliation nationale kon pëcc dafa am mais pëccixoo bi muy am moom fan la nekkoon. c'est ça la le premier ministre bu ma waxalee dëgg rek daanaka bi gën loyal ci président Macky Sall et c'est dommage de le répéter il avait parlé ou il s'était traité kilifa bi nga baal ma rek bi laay baal ma xam naa je pense aux familles quand je parle mais il s'était autoproclamé double bouton. Mm-hmm. d'après. <laughs> am na journal bu ko titré. <laughs> c'est c'est de sens. quand vous vous autoproclamez devoir être le le meilleur des exécutants maintenant devoir se mettre à la posture du leader prompt à régler nos problèmes sachant que la cause ou les causes de nos problèmes vous en avez commis à en finir lettre mënoo ko bind sa bopp tey jii li mu wax yëpp ci ci fi li tax muy engagé wu dans le fond dëgg la. dëgg la kay am na looloo. dëgg la dëgg la hmm. Hmm. mais sauf que la waa ji doon wax ca wolof. Hmm. mbir mënul defaroo fa mu yàqu. wala ca loxo yi mu yàqu. cóob aw aaka yàq nga ne bàyyil danaa ko defar déedéet baal yow na la santoon yàq nga liggéey bul yàq bul yàqati baal yow baal yàq doy na. non xam naa to to toj na waaye mokkate bi lay bañ. mo bu mokk te boo laalee day gën a mokk bàyyi la. Hmm. ñu jël ñun ñu defar lu dëgg. Hmm. jéem tële bàyyi dara newu ca. candidat la nag boo xam ne ci ton bi mu waxee nii mën naa wax lenn mën naa wax lenn. Hmm. su ma ko déggee. su ma dégloo bu baax. fii di may nopp bu baax déglu ko. daa mel ni ku ñuy xamal ne. man sa bokkuma personnalité dama nekkoon exécutant mais man bu ma jëlee affaire yi. yëf yi dina soppeeku man je suis beaucoup plus tolérant je différent de ki nga xam ne moom mooy yilifoon. moom dafa sedd na moom. waaw moom Abdallah dafa sedd. waaw ci dégg-dégg. nit ku sedd la wax dëgg yàlla. après après c'est toujours une possibilité. Mm. sauf que dañu toll ci niveau boo xam ni après benn bokk yaakaar. Mm. man jàpp naa ni seen vrai candidat sax. jàpp naa ni seen vrai vrai candidat. Hmm. bu ma ñàkkee maanu. Hmm. nekkul waa APR yi yëpp. ah. oto Sénégal nañu vigilant le vrai candidat bu fekkee dañuy wax on parle de vrai vrai candidat. Hmm. parce que Amadou Ba est le candidat bi président Macky Sall déclaré président Macky Sall ak ak autorité bi mu am ci APR Benno Bokk Yaakaar décrété loolu mu am ñeneen ñoo xam ne ñoo nekkoon ak moom te bu waxee mu ne waaw démb. tout le temps bu ñu waxee bu waxee ñu ne waaw ñooñu ñëw tey. à la seconde jàkkaarloo président bi def am na koo xam ne su defee leen kàddu ñemeloo <coughs> hmm. Amadou Ba daa mel ni ku nu jox ba pare di góor tànkee ci suuf. di ko dagg ah, tànk ndax góor yooyu nag Pauline am na luñ ci mën a jàngal. xam nga ñuy wax Amadou Ba Amadou Ba alal ji mu am suuf yi mu yor ak nangam nangam. Ah, amul aucune chance comme c'est fini waaye la ca nit ñi xam bu dee am na. nga leen xam loo ka leen koy xamloo lu tax xam xamloo wu leen ko y'a deux ans y'a trois ans y'a quatre ans y'a cinq dafa nekk ba tey bi ñu nee officiellement diw dénk nañ ko loolu yëpp génn ka ko génne mhm. la ko génne la tax mu génn en passant waaye ginnaaw dajaloo la mhm. te sénégalais ñoom nee nañu lu takk ci affaire Benno Bokk Yaakaar ñi ci ëpp laa la wax nu roog ñoom nu ko seen danoo fëx daw. Mhm. fëx daw boobu nag mooy jur tey candidature yi yëpp kasi laale APR benn bokk yaakaar nit ñi daañu la daw maintenant li ma xaw jaaxal nag man. jaaxal ma trop mooy bi nga joxe exemple cinq candidature yu bëri yi dafa am objectif. Mhm. un temps soit peu am na ci kenn si ñoom koo xam ne mën na dem deuxième tour supposons. Mhm. parce que l'opposition sénégalaise. ci gën a ki ci gën a au combat mu ngi ñu ngi kaa xeex pour mu bañ bokk moom mu bokk mu bañ bokk bokk na ba pare parce que dafay am décision ak influence. Mm-hmm. wante supposons l'un parmi tous ces de la paire dem deuxième tour. Mm-hmm. ils vont tous se retrouver encore. Mm-hmm. moo tax Sénégal jamono bii dañu war vigilant trop wante. dafa am ñoo xam ñoo war a dimbali sénégalais yi ci loolu si l'opposition sénégalaise mm-hmm. waaye bu fekkee opposition la boo xam ne tey pëccxoo bi egg na si niveau bi réeroo am na fu ne confusion bi prompte na forte na am na doole waaye la muy forte forte ak jaxasoo baax yépp ka ci am dëgg ka ci amul dëgg finalité bi nit ñi rangé wu nañu fenn fa ñu rangé wu nag moom la ñu war a lijjanti Ousmane Sonko su bokkee ci élection yi souci mën naa bañ a am pour la population qui veut le changement. Mm-hmm. su bokkul ci élection yi c' est hyper risqué. pourquoi parce que les candidatures. Mm-hmm. du pouvoir comme de l' opposition man de tey si jamono bi fi ma toll nii am naa xel ñaar ci la sincérité des uns et des autres vis-à-vis de l' intérêt parce que tubaab fàttaliku leen dafay joué suñu élection yi te daf ñu wër ndomba. dina am candidat ci pouvoir dina am candidat ci opposition. moo tax regardons bien les opposants un à un nañu xool bu baax opposants yi wan bàyyi wan parce que nag tubaab yi dañoo yàgg sonal te man koo xam ne dafaa sonal sama njaboot nag du xaritoo aw. am na fu maa yem ak moo tax candidature yu bëri ak bruitage bi et seetlu leen Benno Bokk Yaakaar. plus ñuy jege élection yi plus ils occupent l'espace de communication la pléthore de candidature de Benno c'est quoi tey journaux yi ñu ci ëpp ñëpp jóg nañu titre ci Mahammed Abdoulaye Dione ñëpp titre nañu ci président Macky Sall donc Amadou Ba Mahammed Abdoulaye Dione président Macky Sall Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao c'est-à-dire que Abdoulaye Daouda Diallo sur un mois deux mois on va voir la presse traiter l'information ainsi cette brèche-là qui devrait être au-dessus moom foofu la kaa kal ma tëj fenn ak respect bi ñu am ci ci kilifa bi euh, John ak yeneen kilifa yëpp dafa am benn message bu leen bëgg a adressé yi nga xam ni tey dañu ko signéloo mu engagé Sénégal quatorze mille milliards de contrat yi xam ne ko jël jox ko ay total ak ca des surtout moom son cas bi Thierno Alassane Sall le brave sénégalais et digne bi nga xam ne ca asañ naa ba tey mu ngi mm-hmm. dund na ko ak président ko ak kii di di di président Macky Sall mm-hmm. ba mu lànkee jox total suñu pétrole lan lañ def dañ ko forcer pour mu signer mu bañ signer le premier ministre Abdoulaye Dione ñëw appliqué signé suñu ay ressources nag ku ko signé noonu soo ñëwee tey dañu laajaat suñu baat ak war ma bu ñu am si yow dinañu am kersa dañ la xoolaat ne la ah ku ne mën ngaa engagé wu waaye ñun a soutenir du ma la mën a voter du ma la mën a jàppale dinaa la respecté la wax dëgg yàlla foog di doomu ni compatriote bu doon mu ni ah. craché na daal ci bilan bi ba pare euh, bilan boo xamante ne daf ko partagé ak <laughs> président la république Macky pour rejoindre ngay wax critique mu ne je m'engage ou j'accuse loolee mooy titre bu mag bi laas ah, ah, ñëw je m'engage